voilà léegi ma Sall au pouvoir. bañ ko waxee loo ba ba waxee ko waxee loo xam na loo. Hmm. du ma ko def du ma ko def du ma ko def. loolu mooy histoire sax du Sénégal. et après s'il vous plaît Pape Samba Dag Samba Dag la la liste des ñu dellusiwaat ci ci reprendre le fil de notre débat la liste des quatre-vingt-treize ans candidats à la candidature on disait que en fait doon wax ne deux cent soixante-six ñu ne c'est étonnant ça surprenait tout le monde euh, ñu bari waxoon na ñu ci bari duñu du ñu romb parrainage c'est vrai ñu ci bari demuñu wutiwuñ sax parrain mais là 93 ñoo xam ne déposé nañ conseil constitutionnel ñii ay dossiers yu manqué kii nee na ma am na ñoo xam ne chèque la ñu yóbbu et cetera ça pose problème quand même. ah euh, que di nga ma may euh, yoo xam ne da nga mu romb demaat a aucun <laughs> euh, man je l'ai dit toujours que ñii booy xaar ci ñoom ñu respecter droit wala ñu respecter loi yaa ngi nax sa bopp. moo tax jarul nga ciy tardel sa bopp parce que li ñu leen mooñaale la parce que xam nga boo nekkee président boo xam ne dafa voté woon te amul carte d'identité nationale national carte d'identité national à Fatick donc yow xam nga ay respecté ay loi ak affaire yooyu doo ci nekk sax quoi donc man moo tax yooyu man du ma ci taxaw euh, beneen mbir bi mooy euh, malheureusement ils ont la maladie donc de de de moo tax xam naa il faut ñu prescrire leen lin mu nga xam ne après ñoom bu ñuy ndékki sax même bu saful suukar sax ñu ne Sonko la bu ñuy añ bu saful xorom sax ñu ne Sonko la ñoom seen àddina yëpp Sonko la euh, finalement ñoom ñoo dem ba construire ko ba nga xam ne actuellement la bipolarisation de l' espace politique dañ koo gën a activer ba nga xam ne ex Pastef tey sax moo gën a doy waar sax Pastef bi nga xam ne passé na parce que li ñuy wax ci ex Pastef tey waxuñ koon ci Pastef bi nga xam ne passé na li ñu tiit ci ex Pastef tey waxuñ koon ci Pastef bi nga xam ne passé na moo tax loolu dañ leen koy nangul man je crois que l'œil est tourné vers les juges du Conseil constitutionnel parce que le droit de vote est délire pour tous yaakaar naa ne tey jii nii ñoom war nañ koo mën a wax s'ils disent le droit jàpp naa ne am na lu bëri loo xam ne ñoom ñoo ko teg seen bopp parce que Moustapha yow journaliste nga. Mhm. jàpp naa ne da nga jaar sisti bi ngay def ISIC ISIC bi ngay mhm. def concours jàpp naa ne ñëwoo rek ñu jël sa dossier la ne demal concours ba pare ñu xool ndax mot na walla déet. dañuy jël dossier bi. xool ko bu baax muy école normale supérieure muy CESTI dañuy xool dossier ba pare boo xam ndax les pièces yi ñu la laaj moo tax nga ko sëkk ba pare ñu soog a jël sa dossier waaye nit ki nga jël dossier ba pare ne ko nag léegi dangay dem concourir yàpp naa ne mooy euh, li ñuy wax mettre la charrue avant les les bœufs mhm. et mooy lan mooy que ni loolu mooy loo xam ne yow yaa ko tey ndax li tax yaa ko tey mooy da nga koo bëgg a def pour léegi naxasal ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne ci biir parrainage boobu noonu dinañ ci mën a bokk parce que yéen ko wax fii. Mhm. boo jëlee une vingtaine de candidats ñoom ñëpp ci biir Benno Bokk Yaakaar lañ bokk. moo tax Benno Bokk Yaakaar amul benn candidat Benno Bokk Yaakaar a plus de vingt cinq candidats parce que ñi nga xam ne ñoo dajoon palais présidentiel. di ko wax ne yow président boo boo boo demee koo ñuy bàyyeel ñëw président ñun xamuñ tey jii nii fu mu toll nii suñu mhm. ñu ne ko waxal foo joxoñ rek ñu dagg fa mais ba mu joxoñee dañoo dem nekk candidat. ils sont là l'histoire est là les faits sont là donc man jàpp naa ne tey. mooy ñoom Mame Boye ñooñu. loolu mooy li nga xam ne euh, dafa yenuwul maanaam donc conseil constitutionnel li mu waroon def xam na ko le mal est là man jàpp naa ne ay règles la ñu war a teg yoo xam ne lii du amati parce que nit ki waroo mën a jël dossier am te mu leer na le dossier bii motul. Mm-hmm. amul benn concours fii boo xam ne Sénégal dañuy jël sa dossier ba pare ne la demal def concours ba pare ñu xool ndax sa dossier est-ce que est-ce que mënuñu le euh, le conseil constitutionnel euh, d'être complice. de de de ce de ce spectacle là. mais mais su fekkee ne moo ñoom seen bopp gis nañ ne y' a seize dossiers yoo xam ne matul malgré tout ñu boole ci tirage bi. mais dëggu ñu ne recevoir sa dossier. Oui. mais ki ngay recevoir dossier am nga ñëw da nga jàpp ne dossier mot na ba pare. parce que lan moo tax ñu ne woon joxuñu le président Ousmane Sonko fiche. Mhm. waa DGE. dañ ne parce que il ne kii remplit pas donc toutes les conditions pour recevoir donc une fiche. waaye léegi lan moo tax conséquence ne moom jël les dossiers ba parce que tout kon ça veut dire. ko xool ba xam remplir nañ remplir nañ donc dafa dafa doy maanaam ñu ngi ci feuilleton boo xam ne kenn xamut lan la kenn xamul lan donc. je mais Samba Samba est-ce que est-ce que foofu aussi du problème boo xam ne dañ koy jël ci seen kaw parce que gis nañu euh, euh, demoon ministère de l'intérieur di après gis nañ nañ leen def euh, Euh, ñoom euh, ñu baree bari ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon société civile bi ñenn ñu jël leen yóbbu leen ay jam ñaajo am na ñu yóbbu filaawo yi amul ay politique yu nekkoon ci ay parti yu ñu gis ñu dem ànd ak ñoom dem xeex ji loolu ab Ablaye Wade ñëw na fii. mooy bi sànni ñoom daa jëli ji fichier électoral moom mi ko def président Macky Sall bi ñuy site souvent aussi xay na amoon na taxawaay bi mu nekk ci opposition moom la mu bëggoon ba ñu fexe ba. mu am une personnalité neutre yooyu yëpp nga xam ne ñoom réclamé nañ ko ba toog ci nguur gi ngeen bàyyi ko ñëwaat après bu jeu bi jotee ñu ne non c'est fauché affaire yooyu est-ce que duñ ko jal ci kaw opposition beeg li ñu war a xeex Issa mmh. maître Tine dafa dem CEDEAO nañ ci ñëw léegi dafa dem CEDEAO n'est-ce pas mmh. c'est un homme politique mu gagné la décision de justice ñëw ne vraiment li nga xam ne mooy parrainage nekk lu baax ci démocratie mmh. état dafa bokk ci CEDEAO tey lañ doon nommé les députés de la CEDEAO état nangu bokk ci CEDEAO Sénégal bokk ci CEDEAO est-ce que décision de justice boobu appliqué nañ ko. mais kon nag wax dëgg yàlla Issa nag ki nga xam ne appliquewul décision de justice nga wëlbati nga ne ko un simple homme politique moo koy ne force nga appliqué lii loolu ay caaxaan la te yaakaar naa loolu duñ ci continuer li mu bëgg a mu ngi koy appliqué te loolu kenn mënu ci dara. bu fekkente ne jàpp ngeen génne baaxul ba pare di ngeen ci dem. Issa ma doon des leen di laaj place. oui s'il te plaît. oui yi passée. kenn du le nom mais a raison xeexul opposition bi xeexuñu ci niñ ci waroon a xeexee. y avait rien luñ def dañoo toog mais may leen Samba Dang bu daane s'il vous plaît. Issa s'il vous yi passée. le nombre de votants c'était 3 millions 279 mille 170 euh, électeurs ñoo voté. Mhm. mooy législative 2022. 2023 un candidat. boo xam ne moom moom moom ki nga xam ne nee na continuité am lay def ki nga xam ne nee na mooy sëriñam mooy léppam. Hmm. moom bi mu demee élection sax amul deux millions de voix léegi moom moo ñëw taxaw candidat bi de moo ne man am naa 4 millions. de parrain de parrain. <laughs> conseil constitutionnel di ko dégg ak ñeneen ak ñeneen xam ne lii kon c'est biaisé kon boobu la waroon jël ay matukaayam ne ah. lii ma war a teg nii kon war naa ko xoolaat parce que ñii li ma leen dégg ñu wax bu fekkee démocratie moo ñu ñor bu hmm. fekkee logique moo ñu ñor ñii nii li ma leen dégg ñu wax ni mënta yenu maanaa parce que lu tax mënta yenu maanaa munoo am plus de cent candidats wala euh, trois cent et quelques ñoom ñoo recevoir sax fiche ba pare ñu wëlbatikuwaat ne parrainage alors que yow yow sa fichier bi nga yor sax c'est 7 millions euh, kii euh, euh, 7 millions donc de d'électeurs ça pose énormément de de problèmes mais nag y a côté positif. muy lan. ce côté positif mooy lan mooy que ni ce parrainage là va permettre aussi aux partis politiques d'animer les écoles du parti de pouvoir éduquer de pouvoir encadrer les militants à la fidélité à la loyauté et au militantisme parce que loolu aussi mooy permettre militant bi. Mhm. xam ne man bu ma xesee parrainé kenn kenn kenn. Mhm. dootuma parrainé waat kenn. mais justement Samba Dang est-ce que parti maam Birame mi ngi koy wax sànq parti seeni militant je veux dire euh, euh, ceux qui détiennent la carte du parti mais boo leen wàññee boo def naa duñu mat soixante quinze mille ah. parti yi fi mas a am soixante quinze mille militants yu yor carte lu yomb ah. non moom laa lay wax. foofu lañ jëm. Mhm. maanaam dinañ dem bo maanaam les partis télécentres là. day jeex les partis WhatsApp là. day jeex parce que dañuy dem ci parti boo xam ne militant bi ci bopp rek ne man diw rek lay woteel. Mhm. diw rek laay parrainel kenn mënut a am maqaama ba nga xam ne dinaa woteel keneen. maintenant y a un autre problème aussi qui se pose. mooy la gestion des données personnelles. Mhm. parce que aussi les données personnelles des gens tey da ngay xëy xëy ñu ne la diw de day maye benn mbootaay financement. Mhm. surtout les ministères la ministère de la femme. day may financement mbootaay yi. donc femmes yëpp nañ ñëw déposer seen carte d'identité déposer seen lépp. on peut prendre ces ces ces données là utiliser à d'autres fins. ensuite dañuy jël beneen mbir mooy les la couverture maladie universelle. ñu jël famille bi yëpp déposer carte def lépp ba pare mais ces données là aussi sont disponibles stock boobu soo disponible mais yow bu la neexee yow nga jël stock boobu noonu am sa pseudo candidat boo xam ne mu sa wet nga jox ko stock boobu ne ko demal nga pare ne su boobaa stock boobu noonu c'est pas pour moom mu dem. mais moom pour mu dem créer ay doublons. d'accord tey. ma jël un exemple. vingt pseudo candidats de de de Benno Bokk Yaakaar. Mhm. dix yi jàll dix yi jàll dans les vingt premiers. Mhm. te ci vingt premiers yooyu jox nañ leen des données yoo xam ne peut-être c'est l'ensemble peut-être ou bien la majeure partie de beaucoup de Sénégalais. Mhm. mun naa sax man sama carte mu nga ci. ñu génn ñu xool ne carte d'identité diwa ngi nii. ñu ne ah kon kii pare na. pare na war na kenn te alors que yow yëgoo ko tinoo ko. Mm-hmm. loolu si ça pose mais dégg naa Mbaye euh, Samba est-ce am na si c'est possible candidat wu 2019 jël pare yam amoon 2019 <laughs> reconduire ko. kenn xamul kenn xamul parce que actuellement. Mm-hmm. bu la ci kenn nax jër nit ki da nga ñuy jox fiche. tu peux remplir la fiche. Mm. mais mun nga jël sa données yi nga xam ne yu passé la. Mm. nga ñëw remplir la fiche mais y a y a des candidats xam ne ba ils ont euh, nañu fexe ba génne dese yi rek jàpp naa leen jàpp naa leen mooy. mooy soit de deux choses l'une comme ni ko Pape Matar waxee. ñu retourner en arrière. Mm-hmm. mu leer na la yow mii sa caution bi bu la leeree ne. bu fekkee sa dossier motul boo ko dugalee conseil constitutionnel du génnati. Mm-hmm. comme ça di xam bu baax a baax. loolu mooy les les solutions yi ñu mën a